Ndongaan sama yaram dafa tàng ndax ku ne xam na ni ku jule tegg Fuuta ndax fii la Fuuta féete futul ay tuñ te ku yem ci kees doo fay ginaar te olof Njaay nee na sondel bi ku loog lamp tànk kuraa ko du am ndam laajal ndox ba muy avant suuf ni ko booy wàcc ma lay naan léegi li ma la a xam mooy ku du du ku de kii te bu dee ah kay naan ko du nii du fi sax kii te bu dee amul yàq kii te bu dee eh, de bagul lak kita berencongan yo mono ah, lomo nak mi kuruku moo eh, ite man mala daka wax ay am solo mais conga waxal sa teewaay déjà waaye xanaa kontaan ci Thiès rek mhm. xam nga tey mhm. su ma teewee fii mhm. war na ndax ñi oote fii mooy waa polygame moo tax tey ma poli tey kenn du impoli te gam bi ma génn moo garaaw kon nag congaan yéen waa seen eh, eh, waa xam nga yéen da ngeen di ndaanaan te ndaanaan ci ndaalee naan bu bëggee fanaan nee naa la polygame ñoom ñooy san équipe bu mag bi nekk Thiès du R cent lii nduróog mburu te dàq mburu du croissant ki nga bokkal direct vous êtes le même cent mais cinq cent boo ci dindee cent lu ci des quatre cent boo amee doole la ñu ne tu es puissant boo néewee doole ñu ne tu es impuissant kon nag ñoom ñooy cent alors mu nekk loo xam ne mën nañu wax ni défi la xam nga ni polygame dafa nekk production boo xam ne sénégalais yi saxoon nañu ko pour la première fois ñu woote fii ci moo ne bari na ci ay icône culturelle thiessois yoo xam ne absenté wu nañ tey loolu du ñàkk nga am si xalaat waaw seen absence xëy na jàpp la rek mm-hmm. ndax boo xoolee tey ku sañoon sa mbokk bu wootee da nga fay teew xëy na amaana bu kenn di mere kenn ci yooyu ndax réer lay jur ndax léeg-léeg nit dina la bëgg a ñëwal fekk du am jot fekk mu engagé wu ci leneen loolu lépp day am man dootuma mere kenn ci àdduna ndax jot moo amatul am na ñoo xam nag ñoo tey bañ waaye ku tey bañ a ñëw dëkk Thiès sa bopp nga koy def fi mu ne nekk nag ku am jot ñëw nga ku amul man loolu laa ko jàppee ku am jot ñëw nga ñi amul jot mënuñoo ñëw waaye nag tey lii ku ne xam na ni am na Thiès waay yu bëri yoo xam ni je vais je vais tenir je vais tenir je vais xam nga maanaam Thiès bu woote Thiès waa sot la mën tey képp ki nga xam ne gisoo ko fii. jàppal ne dafa am programme wala mu jàpp lu rëy moo tax ñëwul fii man du ma ŋaañi artistes yi nga xam ñëwul xam nga kan laay ŋaañ mooy autorités yi nga xam ni dañoo war a jàppale Thiès waay yi man loolu laa gëm parce que tamit mënu ma concevoir Thiès woote lu tey ni grand yaa ngi dégg Thiès waay yi nga leen di wàññi naan ay onze la ñoo ak ay douze waroon nañ fi mat ay milliers de milliers de yoo xam ne Thiès la ñu jógee tey boo xoolee ay waa Ndakaaru ñoo fi nekk ay waa Ndar te Thiès waay yi ay autorités yoo xam ne war nañ leen a mën a jàppale jëndal leen tikk yi luyee leen ay kaar ñu indi waa Thiès yëpp ñu fees fi dell bay tuuru bañ naan sax bisu polygame ba am na ñoo xam dugguñu mais salle bi fees na mais mënoon na gën a fees nii ndax polygame jiinal leen loolu te ay Thiès waa la ñu kon nag dama bëgg ñu gëm seen bopp bàyyi complexe bi bu ñu ñëwee Dakar di sol ay blouson bu ñëwee Thiès sol ay costume nañ bàyyi affaire yooyu man nag ku yebu nekk kii dafa amer dent maa ngi ay dent dama lay matt rek la leen may nit ñi jàmm ngeen jàppale seen doom yi mbiru Thiès gisoo dañuy dem Dakar simmeeku nga defe ne ay likilik ñoo fa ñëw ndax yooyu duñ lekk lu baax naan fonde dugg may nga ah nga gis Dakar seen champion yi autorité di leen jàppale di leen jox du viande jus orange ay fruits ñuy lekk mais Thiès ku fa lekk fruit ndiir nga yëy waaw Thiès mbër mu fa lekk fruit ndiir nga yëy lan laa crème crème juróom dama lay wax moo tax autorités yi foog ñu ciy jàpp man de xam naa dara bu ñu amoon fukki Ablaye Dieye DG AIBD non kon Thiès dina gën a dox bu ñu amoon fukki Mor Gueye sopp nabi Thiès dina gën a dox dama lay wax am na benn euh, Dakar waa boo xam ne moom sax léeg-léeg mu laal ci loxo muy Sidi Ndaw transitaire léeg-léeg sax mu laal ci ndoxam moom te Dakar la dëkk kon nag dama bëgg waa Thiès ñu gëm seen bopp artistes yi nañ am fulla ak fayda ku leen jàppale bu leen taxaw télé di ko gërëm affaire seytaane affaire naafiq yooyu boo leen ko bawul di ngeen woote te nit ñi dul leen wuy si bu leen complexé ku leen jàppalewul taxaw télé bi ne jàppale wuñ ma mais ni ngeen di def nit du leen jàppale ngeen taxaw naan maa ngi gërëm diw fekk deful leen dara mu indi leen ay déception déception nag réception ko gën. ndax jàpp ni lu jaadu woon la icône yi nekk foofu ñëw indi seen soutien ñi nga xam ne mooy polygame dafa en plus que ñu ci a bari ci ñoom ay ndaw la ndax jaaduwul woon quand même ñu teew même bu ñu joué wul aussi ñu ñu jàppale xale yi. waaw loolu moom woon normal mais comme li la ko waxee sax amaana mën na mën na maanaam ñàkk jot am mën na voyage am lu nekk mën na am parce que ñoom seen biir benn lañ de man loolu laa gis mm. xaw ma nag tricherie mën na ci am mais ñoom seen biir ku ci toog tele da nga naan diw sama xarit la polygame buñ toogee ne waa soleil levant soleil levant mu toogee ne waa jànkeen kon nag lool bu dul dëgg ci ñoom ñoom la rek fi mu ne ku yebu nekk benn parce que dëkk bi toj na toj goo xam ne ku fi nekk tricher sa bopp nga koy def fii moom xoola dëgg fi sax te dëgg yu njëkk dëgg yu mujj ay toog télé naan waa Soleil Levant mu tegee ne waa waa polygame sañu xarit lañu waa polygame mu tegee ne waa jànge suñu xarit lañ te loolu du dëgg ci yéen yéen la de nit ñi taluñu yooyu de fi ne nit ñi seetaan lañu am ak ngeen génn ñuy jënd ngeen woote ñëw wuyu loolu rek la demee. d'accord ban message nga euh, message bi may lancer bi gën a doy mooy autorité yi man damaa bëgg autorité yi xam ni ñoom fi mu ne amuñu lu dul Cees ñun ñoom la ñu am ñoom ñun lañu am da ngay gis lu day ni tey président de la république di ñëw Cees yow artistes yu bëri gis ñu seen bopp ñuy tànn ay keel naan yéen ñi yéen si war a ñëw loolu c'est pas normal waroon nañ jël benn journée boo xam sa président day toog ay prestation rek du am discours du am dara du am prestation kese man maa ngi nii presque jox nañ ma dara de mais président li mu ma jox kan la ma booleel laa bëgg a xam ci yéen ñi nga xam ni. kon polémique boobu kon da nga koy dëgg 30 millions yi président neex moom bu ñu jotoon 30 millions moom gars yi nañ ci am ay gor lañ ñoom xam naa leen mais am na ñoo xam ne président dañ leen jox ni leen joxal leen ma daam kooku laa bëgg xam kan la président yow laay lancé appel bi xaw ma koo ma booleel mais yëg siwul de toog naa xaar ba sonn ku nekk nag dafa jox nga ma adnaliti bi ndax dée nga ma ma dee la te dañ doon waxtaan rek ma ak yow ñu defa nag da nga maa dig audience dig ma ay millions président bu fekkee ni am nga koo booleel wax ma turam ma nga jox ma numéro ma woo ko maa ma bippe ko sama benn mbokk bu ma doon yóbbante nee na da nga bëgg politique wala lan moo tax ngay tas yow may yow may may may defal sama candidature yow boo gisee ni ma téye micro yi war a xam ne kii <laughs> yow damaa jekk ci président xool ni ma bokkee xaftaan bi téye micro yi di wax te dara waddul mu leer na ne kon kii ku ko faloon tey maire Thiès wala nga far ko benn ministre wala ah kan laa dégg kan laa dégg ma wax nga ne nga ne matuma mère ndax jànguma j'ai fait les bancs sans nous le nom des dans l'oubli quand on a vingt ou vingt cinq ans la se conjugue au présent da nga naan je suis am na solo lii du discours alors Dame Sène amérique nag dañ ma adopté man boo ma xoolee xam du ma nitu fii ah. ndax yow boo xoolee Thiès waay ak seen kanam ak sama kanam xam duñ benn man tey bu giri laay te ñoom dañoo ñëw kuk ah jëw la du yóbbante jëw la mm. Cees waay duñu ñu kupp man ma giri kon nga xam ne man nii ah je suis un américain te kat julaay foo laa judd fête indépendance Amérique 4 juillet fête bu gën a ci Amérique man daal oh, moo tax benn jour déggu naa avion ah. euh, war a sama passeport tubaab yi di ma tàcc ndeysaan di ma félicité di ma ko làkk di ma ko làkk ci anglais bëggoon naa ko ci anglais sax mais ak nit ñi ma wër nii wóorul wóorul alors su may jeexalee xam ne mooy Doucouré li ngeen defante la congaan congaan man nag yàlla daf maa dimbali ba li nekk ci man sunu borom moo ko def ci man Doucouré it nekk ku neex a liggéeyal nekk ku am talent wax dëgg yàlla doonul loo xam dañoo tëju di répété doonul dara lu dul maanaam woo nañ ma woo ko ñu ñëw ñu ne ah yéen ñaar bëgg nañ seen diwa avant maa ñëw nag sax la ko la ko maanaam ki nga xam ne mooy sëriñ bi sàkku moom mi nga xam ne maanaam moom moom moom euh, kii bi euh, sëñ nit ku baax moom moo ko sàkku ba mu ko sàkkoo ni ma yàgg Doucouré bëgg naa seen duo ba ma ñëwee Doucouré nekk koo xam ne ku baax la ku neex a liggéeyal la am na talent du tricher doon koo xam ne nekk ci boppam boobu génne gu ko de Sénégal xam nga kuñ Doucouré de nañ dem ba ci kanam duo boobu kii du mu naan ma ah, kay